am na nëgën ay waxtu Sénégal daal dinañ ko attaqué ci xarala yu yees yi ay sites yu mel ni yu présidence yu gouvernement ak yenn ci ministères yi mënee su faa jotee ci jamono bi nga xamee ni xabaar baa ngi law ab compte Twitter bu groupe acteur bu ñu tuddee Mysterious tiima daal dinañ xamle nii ñoo ko amal. ay waxtu ci ginnaaw doon nañ menacé nguurug Sénégal ñu ràññee leen ci jëf ju ni mel ñu amal ko ci yenn réew àdduna bi activiste yi la ñu xamle moo di nii dañuy fësal seenu ñàkk ci régime président Macky Sall mi nga xam ni jàpp nañ ni dafa nar a def ñetteelu mandat ñu ngi ci wetu askanu Sénégal bi nga xam ni taxaw nañ temm ngir fësal seenu ak ak yelleef mu di tànn seenum njiita groupe bii di Mister Youss fas na yéen itam amal yeneen i action la ñu jàpp moo di ni lii du benn yoon wàcc yoon waaye ab porox ndollu képp la ngir fësal seenug mer ca seenug boor nguurug Sénégal daal dina dëggaal bile attaque di xam le ni lile mooy li ñu tuddee DDoS la leen yëkkati moo di fexe ba kenn du mën a jotee ci site yooyee. Abdou Karim Fofana di xam le ni ay équipe yu nguur gi jug nañu jamono jile ngir saafara bile mbir.